dalleen ak jàmm seen seen bi di seen njëriñ TV Sénégal ki ñu dippee aadama gay di ab journaliste bu kenn dootul présenté ti ci réew mii di Sénégal la ginnaaw bu PM bii di Ousmane Sonko yëkkati woon ay kàddu démb daal di xamal sénégalais yi ne ministre de la justice bii di Ousmane Diagne avant muy jàpp ki ñu dippee Alassane bu Sonko kookee di Ousmane Diagne di ministre de la justice daa jëloon vidéo boobee daal di koy envoyé PM bii di Ousmane Sonko ngir kookee daal di koy càmbar ba noppi daal di koy sook jox fu veram ngir ñu topp ki ñu dippee Alassane bu Sonko kookee di Adama Gueye ne li mel xaajut bay nekk dëgg waaye tamit xaajut bay nekk yoon ndax ne li mel bu fekkee ne PM bii di Ousmane Sonko moo koy wëyal di amal ci réew mii di Sénégal nekkoon kii di président Bassirou Diomaye Faye jarul woon muy daal di oote et national de la justice ci réew mii di Sénégal ndax ne jëfinu PM boobee di président Ousmane Sonko dafa daal di woroog esprit assise nationale de la justice yi ñu doon amal ci réew mii di Sénégal kookee di Adama Gaye nag képp ku amal ab njàngat jëmale ko ci kàddu yooyu mu yëkkati da nga gis que ne ak bu critique bu objectif la maanaam critique bu am solo la waaye kookee di Adama Gaye li ñu koy fàttali rek moom mooy que ne ci lu yàggul dara ci régime kookee di président Macky Sall ay ministre yu bokkul la premier ministre bi ci réew mi di Sénégal dañ doon signé ay contrat yu leen neex ba noppi soog a jël contrat yooye ñu daal di signé daal di koy soog a jébbal premier ministre bi ci réew mi di Sénégal te bu fekkoon ne contrat boobee ministre bi da ko signé ba noppi moo am ay lënc-lënc wala lu baaxul ci réew mi premier ministre bi du ci mën dara ndax contrat boobee signé nañ ko ba daal di noppi. te kàddu njëkkati lu koy firndeel moom mooy que ne kiñ dippee Amadou Moustapha Ba nekkoon fi ancien ministre du budget et de la finance ci régime kookee di président Macky Sall fii la dem daal di bale ay fiscalité yu entreprise bi biñ dippee Sabodala Gold Corporation amaloon réewu Sénégal te boor boobee moo ngi tolloon ci cent cinquante six milliards de francs CFA. léegi nag ci mbir moomee duñ ci wax kii di aadama Gaye moom mooy que ne ci jamono joojee bu fekkoon ne. ki ñu dippee Ousmane Sonko moom moo nekkoon premier ministre réew mii di Sénégal lu leer ba amoon mooy que ne kiñ ñu dippee Amadou Moustapha Ba bu ko waxoon que ne day baale impôt akum entreprise bu yoreel xaalis lu tolloog cent cinquante six milliards réewu Sénégal la lu leer ba amoon mooy que ne bu fi kii di Ousmane Sonko nekkoon premier ministre day daal di bañ ba di tëdd ci suuf kon kookee di Adama Gaye dinañ ko nangul xalaatam ndax lu objectif la waaye tamit yoon bu bees bu ministre yi jël te di xibaar kooku di président Ousmane Sonko akub décision avant ñu koy jël lu baax la ndax li ni mel dina daal di permettre premier ministre bii di Ousmane Sonko di contrôler kullu action bu ministre di amal ci régime kii di président Bassirou Diomaye Faye ba noppi aaraale bu baax intérêt wu réewu Sénégal.